rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 14 août 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy tey doore mel ni ki yëglikaay bi di sunu lamb nag moom tey fa mu xëy ñëw wala kenn mu xëy séqal waxtaan mbay sàmb la ñu koy wax mbay sàmb nag moom la mu xëy di wax lan na la ci ay combat daal la xëy di ca joxe gis-gisam ak xalaatam ba ca njëkk mooy diggante Gris ak Balla Gaye numéro 2 jàpp na ne combat du siècle la maanaam combat la boo xam ne daal ci xarnu bii moom bu soobee yàlla des na ko ci xel di fàttaliku na loo xam ne nag mu ko cay ragal muy dóor mu daanu nee na daal boo sàgganee dóor mu daanu xamante ne nañu bëri woon bu njëkk dolliwaat nañ ko nee na su keroogee moom mënees na caa dóor kenn ki mu wàcc toog ca suuf leneen loo xam ne wax na ko ba tey ci beneen combat boo xam ne am na muy ca ragal ci boobu combat itam daal nee la la parce que da koy tiital problème mu encadrement nee na daal lii lay xaw a ragalal ki xam ne moo di Tapha Tine Mbaye loolu la xëy tey wax ko ci combat yi nga xam ne nii ñoom ñoo am tey yuy combat yoo xam ne ñu amateur yi di xaar la ka nga xam ne moom moo Balla Gaye ñoo bokk écurie muy Double Less numéro 2 yëglikaay bi ñëw na ci moom ak ñàkk bërëm ak li nga xam ne nii daal moom moo ko arrivé ci li nga xam ne moo di carrière ak itam naka la war a def bokk ba réussir li nga xam ne mooy fenn carrière ba yëglikaay ba moo xëy tey ñëwal ñu ci ki nga xam ne moo di Double Less numéro 2 beneen doomu géejawaay boo xam ne sunu lamb xëy na tey ñëw ci moom muy guy gi ginnaaw nag ba combat ak taxawee moom guy gi yëglikaay bi xamal nañu ne daal li am ba am daal weekend bii nu jëm moom wala boog ci weekend bi ci la fas yéene wàcc si ñibbi si fi nga xam ne moo di Sénégal yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu ñi nga xam ne nii ñoom ñoom ñooy tëgg làmb ji muy promoteurs yi ak millions yu bëri yi nga xam ne génne nañ ko ak ki nga li nga xam ne mooy corona bi na mu ñëw yàqe saison bi moo tax yëglikaay bi ñëw na daal ci ñoom tey wan ñu leen jàpp ci saison 2020 bi jëm 2021 mel ni ki daal promoteurs yi tey yëglikaay bi xëy na tey wan ñu leen ci photo woo xam ne wu fës a fës la am na leen loo xam ne wala ñeneen ñoo xam ne nii moom yëgli kaay bi ñëw na ci ñoom wala beneen mbër boo xam ne sunu lamb xëy na ñëw ci moom muy jaradoo bu Pikine yëgle bi jàpp na ne moom espoir la boo xam ne daal fi nekk nii mu ngi yëg jëm ca kaw li ko waral yëgle bi na ay performance wala ay série performance yoo xam ne teglante na ko moom jaradoo bu Pikine yeneen doomu Pikine yoo xam ne nii moom seen ab écrit daa mel ni ci lëndëm lay gën a dugg muy écrit ba nga xam ne moom la Ama Baldé a def lenn ni ki yëglikaay bi di sunu làmb loolu la xëy tey andil ñu ko ci écrit boobu mel ni kon daal ñoom ci lëndëm la ñuy gën di xuus bu dee ki nga xam ne nii moom moo di fàllaay numéro 2 na moom xotti na licence am maalaw seras moom daa mel ni koo xam ne des koo fàtte Alaaji Mbay tamit feccatul wala boog géej naa fecc maanaam nag la am solo mooy wala boog ka nga xam ne wala ñu sauvé meuble du kenn ko dul pokola ki nga xam ne moo di booy balde waaye ki nga xam ne nag moom moo di ndemtu yàlla sa itam ñàkk nañ ko ci année bi ñoom waaye ko def fàllaay balde muy sil balde siñor moo tax Jules Baldé ma nga xam ne moo leen tàggat moom waxul ci ay résultat moom daal la ko metti lool te yegg ci xolam tuuse ko ne na daal dem gi nga xam ne Jules Baldé senior dem na wéetal leen ko daal moom ca loola ca la xëy tey wax moom ma nga xam ne moom moo leen di tàggat buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record record nag moom dafa xëy ñëw ci Balla Gaye 2 la ko commencé ba jàpp ak victoire yu rëy ya nga xam ne nii dajale na ko ca ma nga xam ne da koo stoppé taxawal ko ci fa mu tolloon ci ay victoire tolloon ci 14 mu bëreeg Balla Balla tere koo dem Baboy tamit ñëw Balla Gaye ko boppam ka nga xam ne moo di Tyson tamit Balla Gaye ma nga xam ne ko daan roy ba ñu bëree itam kër am na loo xam ne Balla wan na ko ko ñu ne ko déet na waaye ca nga yem Balla nag daal di dajeeg Yékini daal di ko taxawloo moom tamit damanaam daal daan ko jël boo xam ne ba tey ñu ngi koy wax waaye yemu ca de moom Balla Gaye la nga xam ne yëglikaay bi tudde na ko palaar bi nga xam ne mooy deseeram nag wala boog ak résistance ba tafaatin la tafatin la teg ci Yékini mel ni kon daal at yooyu moom Balla Gaye de da caa lëmb ci làmb ji def la ko soob wala boog la ko neex keneen koo xam ne nii moom làmb ji am taxawaayam bu bëggee dégg-dégg donte mën naa bëre di talent bu baax a baax moom amet dem waaye ak doxam daal fi mu nekk nii moom nekkul doxin gu leer parce que nag yëglikaay bi ñëw na ci moom ak onze victoire ci 17 combats yoo xam ne am na ko moom record mel ni ki amet dem daal am taxawaayam mu nekk nii moom baaxul yëglikaay baa xëy ñëw tey xaymaal ñu ko maanaam daal ci fukket yi nga xam ne moom génne am dem ñaari defet am na ko ci cinq victoire la ci jot am ak juróomi année balance record a xëy ñëw tey jàngatal ñu loolu am na koo xam ne nii moom boo bëggee dégg dëgg maanaam daal moom bégul ci boppam muy ki nga xam ne nii mooy Ibou Senghor numéro 2 maanaam parcours bi mu def leen daal daa jàpp ni moom kontaanu ci dara dara dara moom Ibou Senghor numéro 2 donte jot na saa sax gagné ab xaalis keneen koo xam ne nii moom bég na bay gërëmaate du kenn ku guy gi yëglekaay bi di record a xëy ñëw waxal ko guy gi nag ka muy gërëm du kenn ku def na ko ci kombaam ak ki nga xam ne moo di rëg-rëg Bombardier tamit yëglikaay ba xamal nañoo daal wala boog Leewtoo point net mu ngi ñuy xamal ne Bombardier moom kii di Malick Gakou dalal na ko ci démb bopp wala daal dalal na ko loo ci mën a dëgg moom loolu la mu Leewtoo point net xëy tey xamal waa Leewtoo TV nii lay nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar si àjjuma ji maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di nuyu internet yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm ñëw nag si sunu lam sunu dafa dalal ki nga xam ne mooy Mbaye Samb nekkoon ancien moom daal li mu jàpp daal nee na combat Gris Bordeaux moom mooy combat di siècle Babacar ah, di la laaj ba tey rek parce que am na xam na am nañu xamul siècle <laughs> lan mooy siècle maanaam boo teg si wolof siècle téeméeri at téeméeri at daal moom mooy seek moom li mu jàpp nee si téeméeri yi nga xam ne moom la nekk nii bal combat Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Gris moom mooy combat di seek loolu nag moom mooy bi mu jàpp ne moo ci nar a dàq voilà mais nag am ñu doon jàpp nag combat Yékini Balla nekkoon combat di seek ba léegi génnaguñ si santaan ba tey génnaguñ si santaan ku nekk ak sa gis-gis <laughs> pata sama gënal ñam bi kuñ ci sa avocat baaxul Mbaye Sam ñu koy xaw ma dina dàq xaw ma du dàq mais mën naa xam ne moom ci combat yi neex lay doon ndax la ñu wane woon bu jëkk vrai combat lañ defoon bëre xeex bari xeex ba combat ba jeex te pourtant ba muy jeex kenn du maanaam wal gàng amu fa mais amateurs yi merewuñ leen parce que xeex nañu bëre ba combat ba Balla gagné ko ci avertissement kon xalaat ah, a naa ko ci nan na neex moom mm, waaw xaw ma combat du siècle wala boog mais daal en daal xam naa combat bu neex lay doon ki nag mooy xam ne moom nag la Sénégal yëpp di xaar rawatina nag Reug Reug nañu daal weekend bi fas yéene na teg tànkam fii jóge états kooku nag moom mooy guy gi waaw dafaa yàgg moom def na fa ay mois yoo xam ne mu ngi États-Unis di liggéey Covid bi kay moo ko fa téye woon waaw ak Covid waaw Covid moom foo maanaam teg na ku nekk lu la neexul toog loo nag ku nekk foo bëggu toog lépp Covid bi lépp mm. kon ñu koy wax ahlan wa sahlan rek na dal ak jàmm yaa yaa ngi dégg moom guy gi ñëwaat ci réewam mu nga xam ne fi la dëkk réewam moo xam ne nii xam nga ah fi la am combat war a bëri ak ki nga xam ne nag mooy rëg-rëg muy komba boo xam ne tamit mm-hmm. bu ñëwoo dugal ko ci combat di siècle yi rek ndax xam naa ne komba boobu moom ñoom ñaar seenub signature contrat guy gi ku ne xam na ko rëg-rëg moom xam nga lébu la <laughs> moo tax ba nga xam ne rek ma ciy profité di nuyu suñu mbokku lébu yëpp ah, di leen mm-hmm. ziar ah. di nuyu tamit waa cene ba mbokku guy gi voilà waaw Babacar su ñëwee na si écurie Falaye Baldé mënoon na wax keroog ban écurie moo amoon 4 défaites benn victoire écurie ba wala amoon 4 <laughs> défaites ak benn victoire moo xaw a tane nag kii nag ñu victoire ak ñaari défaites nag mooy écurie Falaye Baldé nee ñu Falaye Baldé bras de ñii six combats xaw ma cinq combats <laughs> ñii am quatre combats am deux victoires deux défaites ñii ñu ngi ci de ñu ngi ci digg bi yéeguñu wàcc ñu muy waa Falaye Balde waaw Jules Balde li mu gis daal nee na daal eh, demu ki nga xam nee na daal mënul mënul blâmer kenn si si wàllum maanaam si défaite résultat mm-hmm. waaw parce que nag comme li ma lay wax rek euh, fu ñuy feese Ndeye Coumba Fall kenn du fa ñëw di jooyab góom defe naa ne moom <laughs> bu ñu ñàkkee ku toll ni Jules Balde si ñoon ci ci ci ci saison bi bu ñu sañoon bëri yëpp bëree daanu teg di dund kon defe naa si loolu mu wax loolu kilifa war a wax defe naa itam loolu doon xaar si moom ni moom mbirum résultat sa du ci ne di ci wax li ko touché te jàpp école bi ba du amul ku ñuy blâmer mooy ki nga xam ne ñàkk nañ ko loo kooka nag ki ko jël mooy ki moom ñëpp jëlaat yi moo ko fi ma ñoom bu mhm. euh, léegi ay saison blanche moom daal nee na mi ngi seet daal ban bunt la war a jaar daal pour a jeexale carrière am waaw de moom wax dëgg yàlla gëj naa bëri parce que defe naa boo diggante ak bàyyi ma ñoon ay mu ngi bëgg a yàgg def na at yoo xam ne bëréwaatul te nekk na moo xam ne nii ah ñëpp gisoon nañ ne kii war na dem fu sore sori te dem na fu sori sax mais xay na ñàkk bëre bu bëri bi année balance yi teglantoo ci moom moo tax xay na ci diggante bi mu xaw a relâché wu nii ba affaire demee nii mais nag nekk na moo xam ne xalaat naa bu ñu ko essayé jox ko combat mm-hmm. xalaat naa ne ah li des ci carrière mën na ci wane boppam. Mhm. waaw Babacar nag euh, ñu ñëw aussi si sunu lamb ñu wax ni les promoteurs dans le brouillard moom nag dañ moom ak ak Leewtoo point net noo xaw a nuroo papier ndax lii Leewtoo ñëw na si euh, démb si wax ne euh, promoteurs yi nga xam ne joxe nañu seen avance ñoom tamit daa ñoom ah, ngi si ay dara ñu nekk si difficulté su fekkee ni saison bi Covid bi bàyyeegu leen joxe nañu ay avance te xamuñu saison bi kañ lay ubbi te aussi texte nag avance yooyu joxe xamuñu tamit mbër yooyu kañ lañ ko fas ku si mel ni comme Aziz sax wax na ne moom tey ji su nekkoon day tëgg lamb ba léegi moom neen loolu du ko def parce que promoteur day am business plan maanaam nga xool situation dëkk ba ak nu làmb ji doxee nga mun investir sa xaalis mm-hmm. si làmb ji balaa ngay mun a joxe xaalis parce que tamit xaalis boo xam ne danga koy joxe xamoo kañ la nit ki di bëri dina la pénaliser yow mi génn sa xaalis dina pénaliser aussi mbër boobu xam ne war na ko sëgg bëri loolu yëpp mi ngi woon si Leewtoo point net Babacar sunu làmb ñëw na si tamit tey oh, waaw mu mel ni kon dama naan Leewtoo point net que ñëpp làmb la ñuy def defe naa wax yow wan war ta li ñuy liggéey benn liggéey bi la la ci am solo rek mooy ku ci nekk rek ñu gën a xam nga rek euh, yéenante jàmm rek dafay gën a la affaire defe naa lool moo am ci diggante ah yàlla nañu yàlla gën a sàmmal xam nga liggéey bi am na solo mais nag li am solo mooy promoteur yi moom promoteur moom dama naan moo ko baykatayam yàgg naa ji yaa ngi dégg di xaar mu taw mu bay mu ñor ak yooyu promoteur jikkooy baykat laa leen di jàppee promoteur yi seen jikko parce que ñoo jël ay millions jox ko mbër jëm moom at wala lu ëpp at wala ay weer di xaar ren nag ñu gën a def lu gën a pire mooy corona bi ñëw xamuñu corona kañ lay am ñi suñuy génne xaas di joxe waaw loolu defe naa ne. xam nga Babacar yaa ngi wax sax di xaar mais ñaata yoon la fi mbër euh, promoteur jox mbër dem jour ba si jour combat ba promoteur ba lamb ji mel comme sunu papa Khadim Samb tëgg na combat ba jour combat ba combat nax saa yi noonu tamit loolu tamit ay risque la. mais waaw loolu risque mais xam nga Khadim sax tane ndax moom lambam dagg jaay nay biyam nit ña ñëw nañu ba mu ba ñu des ñaari grand combat mm. benn ba yàqu ñu continuer kon journée ba yegg na benn ci amuloon jañ programme man mooy Aline say Junior ak Aline Seye 2 ak ñaxe jariñ ñi nga xam ne nag moom dañoo génne joxe lamb ubbeegul corona ngi taxaw ñooñu vraiment boolee defuñu ay risque am na ay risque mm. mais nag àddina lépp risque la nañ leen nañu ñaan yàlla rek yàlla mi mën tey maye yàlla na corona bi jeex moom looy lu yëngu a génn ak heure bu warul génn mais dama yaakaar ne promoteur yi daal encore une moom moo tax président de la république monsieur Macky Sall war na leen gën a gestu ndax itam na gestu réew mi yëpp demee ñi dañ cee bokk parce que li tax dañuy génne ay millions day Kumba jox ko nit te itam ñooy ñuy jox xaalis ba ñu ngi wàññi semence parce que promoteur daal jar na soutenir daal mm-hmm. Mhm. waaw suñu jógee nag sunu laam nañ dem fi nga xam ne mooy record record nag dafa def nag tey jàngat bu yaatu si carrière ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye nen daal les 4 ans de rêve de Balla Gaye maanaam daal am na ay victoire yoo xam ni tey jii carrière Balla Gaye soo koy lim am na victoire yoo xam ne mënoo ko si génne ku si mel ni contre euh, Baboy Modou Lo Yékini Tapha Tine ak ki nga xam ne moom mooy Tyson waaw loolu moom defe naa cinq combats am yooyu moom. wala wala wala euh, victoire yooyu. cinq victoire am yooyu. mais si ñetti at la ko ah, waaw cinq victoire dafa dafa marqué carrière Balla Gaye ndax boo ñëwee si diggante mu Modou Lo defe naa lamb jooju na mu mënoon ko ni communication lamb ne mel mu daan Modou Lo ñu jóge ca yaakaar na bu ñu ci jógee Tyson la ca teg. Mm-hmm. wala baabooy Baboy sa la ca teg. daan Baboy combat boo xam ne Baboy ak ta Balla it amoon na enjeu. jóge ca ñu ne dina waaye mu teg ca Tyson jël Yékini ñu ne doo du mënu ci dara mu réussir ko daan ko jël tafaatin Lamine daan ko muy jamono joo xam ne daal wala moment yoo xam ne wala 4 ans yoo xam ne Balla Gaye de Ndeye Coumba Fall wane na ci loo xam ne lu doy doy la ci mbër waaw ah, suñu jógee nag euh, si euh, lutte euh, frappe bi dañu dem nag si lutte simple bi foofu nag amuñu mi ngi wax ni Gane Seck 2 gañe na daal ñaari trophée ak million million 1 million donc moom daal li ma gis daal moom nee il est passé à de sa saison maanaam saison moom jàpp na ne baaxul bëggu damaa damaa gëj a laal xaalis moo tax it damay juum sax si ah, xaalis gi war ngay laal xaalis nag jigéen daa war di laal xaalis nit sax war di laal xaalis ndax day dundal xol yàlla nay doon bu leew ba waaw man de maa ngi sant yàlla xam nga sant la jàmm moom da nga di sant rek foo toll na ni alhamdulilah rabbil alamin non boo ko def yeewu nañu rek dund dafa seer dund gi nuy dund am na waaw am na ñoo xam ne bu ñu sañoon ñàkkte na fi waaw mais nag alhamdulilah sant yàlla waaye waaw non dund gën lépp dundal ba pare boo dundee dara du la jo am kon daal Gane Seck moom ah ñu koy ñaanal rek moom tamit xëy na daa xeeb la mu gañe waaye li mu gañe weccet la de am na mbër yoo xam ne saison ren bi mm. bëri nañu mais amuñu sax lii moom kon na yàlla rek ah. liggéeyaat looloo ci des ñaan yàlla saison ubbi waat mm-hmm. moom tamit ñëw nag journal bi ñëw na aussi si ki nga xam ne mooy Ahmed Deme nee na 11 en 17 combats forte irrégularité maanaam daa su teyee mu bëre beneen saison bi du bëre neen daa su la champion la mais parcours bu médiocre la am. waaw parce que Ameth dem boo xool ay combat moom xaw na gëj sorente te defe naa bëre mën na ko lool te xale caaroy la mais nag loolu li ko waral rek des fois euh, bi adversaire bi bëgg nga ko bëggoo bi nangam nangam yooyu dina faral des fois combat yi di yéex mais yaakaar naa bu ay combat am gaawoon. mu bëre ni mu war a bëree normal saison balance yi néew kon ba tey pour man sa niveau bi mu nekk moom Ameth Deme romb na ko parce que macha allah am na xam-xamu bëree lool. Babacar suñ jógee foofu est-ce duñ dem euh, Leewtoo TV foofu kii mi nga fa liiru liiru jaan sa xarit sa copain liiru daal ñëw na daal toj na États-Unis toj na aéroport Diass parce que bu mu wàccee sa avion bi rek am na fa jàppal bàyyi soo ko def interview sànna xeer euh, euh, guy gi sànna daal ay xeeram daal si si laa waaw man de dama daan diggante ma guy gi ñoom ñoo bokk géejawaay rek dama daan wax rek laay wax ay nit moom bu ñu dëkkee nañu fexe mu rafet rek ñoom ñëpp ñoo bokk géejawaay nañu jéem a fexe la rafet la la nga xam ne nii mooy li leen di boole ah. parce que dama naa li leen boole tàqaliwu leen parce que dëkk leen boole te dëkkandoo dafa am solo kon ñoom ñëpp nañu waxtaan ñoom ñoo bokk seen biir géej a way rafetal soow mi duggee ko marché liiru nag xam nga ko xam nga liiru moom nit ñi dañ koy bëgg di dégg parce que communication mag yomb cay def mais nag am na ci loo xam ne ñu ngi koy jéglu internet yi parce que xaw nañu rëcc ci loolu nag des day dal kii liggéey waaw am na ci ay mots yoo xam ne génn na ci dañ koy balu àq bu baax a baax parce que yooyu gënaluñu parce que comme li ñuy wax rek réewum teraanga lañ ne mais réewum sutura lañ ne réewum ay teggin lañu ne yaa ngi dégg xëy yooyu moo tax mais daal liiru ñëw na daal Ndeye Coumba Fall ah. jóge ne daal su nekk valisam yu bëri xaw ma si tam xaw ma nu mu koy waxe sori ma ci anglais sori distance am nu ko anglais waxe de boobu dala jëkk a may bi ma mooy sori loolu la liiru njëkk a wàcce ko kon boog sa anglais yooyu Babacar euh, wax moom lañ leen tàggoo jox di daje leen incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay Merso nuyu sama doom moo Diouf nuyu Astane ne déjà vraiment chéri Khadija Diallo nuyu ki nga xam ni mooy As euh, Seck chéri Khoudia Seck depuis Italie maa ngi koy nuyu Abdou Gueye Baye Fall jàmm gën euh, Papa Cité depuis États-Unis maa ngi koy nuyu nuyu ki nga xam ne mooy Soukayna Dieng ak ki nga xam ni mooy. Euh, waa Mauritania ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu Babacar. sa mbokk naar yi. waaw sama mbokku naar yi ñu ngi leen di nuyu ma cay nuyu ku mel ni sama jigéen ba Asi. Jumboori Mbodj maa ngi koy nuyu Jumboori Mbodj bëgg nañ la mais Asi Diagne duñ ko mën a fàtte. mais koo tey naa la laaj ku la ñawale sa robe dafa rafet à la sénégalaise comme à la sax ku ko ñaw lii. nii de sama benn nii ñawoon ko nii lañ koy jaayee nii. donc moom jëndee voilà ni nga ko jëndee. voilà macha allah lii rafet na trop. kon ñu nuyu internet yëpp di leen ñaanal jàmm rek di leen jàmm rek liñ ci béy ñu muurloo ko. te Babacar nga jégalu démb sunu internet yi. waaw démb revue bi jàllul parce que problème mu kii la woon am des mm. ñu ngi jégalu xam nga di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa Mbour Géej waa Thiès Touba Diourbel Tivaouane Thiès Casamance Kaolack fàttewuñu fenn Tambacounda ba Fuuta fu doomu Sénégal nekk ci àddina bi mais Ndongo Fall ca Italie maa ngi koy bëggee bu baax a baax mais tey nag ku dafa am ku ma ñawal ku ñuy wax Kara ci yàlla Kara Couture nekk ca Medina ca Rive 22 maa ngi koy nuyu xam nga jàkkaay jàkkaay sanc ba xam naa ko mook am seet ak léegi sëy di côté yooyu waaw exactement woon sànc waaw waaw jàkka non jàkkaay jekkoo non sànc bala sànc bala sax ci niveau deux foofu la ne kara couture maa ngi koy bëgg di taal bi sëñ Modou Kara ñu tuddee ko borom kara xam nga lii biim ñaw boo xam nga couleur bi ban couleur la kii ah waaw ma ko mën jaune moutarde moutarde moo tax it saf na sap mu raxaman ci noir nii waaye <laughs> ko kara kenn du yow